ak euh, bi nga xamante ni yaa ngi ko doon mëne ci parrainage bi euh, gisoon nañ ni que da nga defoon recours mais cour suprême daal di rejeté boobu recours bi lan mooy suite bi est-ce que doo bàyyi mu sedd tamit. waaw kooku yàgg naa ko wax Macky Sall moom du ma ko bàyyi ak yàlla moo xam na euh, en tant que tel mais jëfinu état du Sénégal parce que tey mhm. laataa ma tabbi ci politique. Euh, ñi ma xam dëgg ñu ma xam ci défense su droit de l'homme